te olof dafa wax ne ku la woo ku la waxul jox la yàlla ba mu wootee nag joxe na wax na joxe na ko te mooy yërmandeem ak njëggalam wax na mooy bindal na leen tiyaabu moo tax mu ne wa iz ja'alna al-bayta masaabatan boroom xam-xam yi ne rek mooy masubatan mooy foo xamante ne dañ fay amee tiyaabu xam dëgg-dëgg important bi mu am solo yonent bi wax ko ci xadis ba ne julli foofu wala def foofu lu baax dafa tolloo téeméeri junne yoon miatuwal téeméeri junne yoon ci boo defee lu baax loolu wala nga julli fu dul foofu ñii def xisaab ne nit ki presque boo seetloo ci bés bi dana julli juróomi yoon juróomi yoon alayhi salaatu wasalaam ne ku ko sàmmoo eh, manoo am bàkkaar ndax misaalu kuy julli juróomi julli dafa mel ni ko am dex ci buntu këram nee na bu di ci sàmmu juróomi yoon par mu ne ndax dangay gis kooku ci yaramam tilim ñu ne ko déedéet mu ne ko salawaatul xamsi noonu la moo tax ku sàmm wante moom ba dee amuloo ci benn bor da koy tuddee zimma moo tax loo ci am fay ko boru moom texe na parce que benn bakkaar la dul yóbbaale nee na asalawaatul mafruda kafaratun lima baynahum nee na boo jullee tisbaar bi itam nga fexe ba rëccu la nee diggante ba loo ca def ci bakkaar yàlla fompal na la ko kon xam nga tiyaabu rek moo ci nekk kon juróomi julli nga ñuy def ba bés boo demee ci weer bi boo kontee juróom yooyu da am téeméeri julli ak juróom fukk weer bi da julli lu tolloog juróom fukki téeméeri julli ak juróom fukk nga dem ci at bi boo kontee am junney julli ak juróom-ñetti téeméer moom ngay am ci boo ko kontee ci at bi di julli te rëccale loo ci benn te dara waru ci rëcc boo comptee fukki at yi nga dund kon dana tollu ci dix-huit mille bi maanaam fukki junneeg juróom-ñett lay toll fukki junneeg julli ak juróom-ñett moom ngay am bu dee bés bi juróomi at eh, juróomi juróomi julli eh, yi koy bind bu dee weer bi danga am téeméer ak juróom fukk téeméeri julli la ak juróom fukk moo nekk ci bis ci weer téeméeri julli ak juróom fukk bu dee at bi junney julli la ak juróom-ñetti téeméer bu dee benn at bi bu dee fukki at nag boo compter julli dana toll ci dix-huit mille bi maanaa fukki junni ak juróom-ñett boo compter juróom fukki at yi juróom fukki at yi kon dégg ci am quatre-vingt-dix bi maanaa juróom-ñeent fukki junni moom ngay am. quatre-vingt-dix mille moom ngay am ci juróom fukki at. nga dem ca Kaaba ja benn julli am nga téeméeri junni téeméeri junni moom nga am ci ay junni kon bi maanaa il faut nga dund juróom fukki at ak lu tegal pour mën a dab kan ka fa am benn tisibaar il faut nga saraxe juróom fukki junne at pour mën a dab ka saraxe benn sarax fa jama katal mu kam moo tax yàlla tuddee ko if ja àndal bayta masabata borom xam-xam fa seen ne mooy fa ñuy amee fa ñuy amee tiyaab moo taxoon mag ñi di doon jiital ñu dem mag ci lépp lu ñuy def ñuy seddale bu ñuy def lu nekk dañuy seet ñi dem aji mag moo tax ñu doon séparé ne alaaji pour bu ko defee ñu mën a xam ne kii am na beneen garaat boo xamante ni am na ci mbir mi parce que militaires yi yemuñu la ñuy fekk ci solde te pourtant ñoom ñëpp militaire la waaye yemuñu la ñuy fekk nit ñi itam naka noonu gis nga ñi xas a dem màkka garaat ba ñu am mooy loolu la leen yàlla di bugg di bindal ci tiyaab moo tax mu am solo pour nit ki góorgóorlu ba yegg fa lan jiitu ca góorgóorlu mooy di ñaan parce que mbir moom ñaan rek la yàlla moom dee ko koy ñaan rek du ba mu koy yàlla mooy yàlla li ñu koy mu continuer ci aj ba mu ne la na ngeen fexe nag ba ren di gàtt ya bugguma kenn xiif bugguma kenn mar ñépp nañu am jàmm mu ne nag waaye nag lan yanaala laa du yëgg ca yàlla lu wumuwaa yàpp ya wala dimaa waa wala deret ba xam nga yonent bi nee na na ngeen ko duufal loolu wax na ko nee na mooy doon seen war waay yowmal qiyaamati waaye nag bu mu tax nag nga fàtte leen li ñëw ci kanam mooy nga duufal ko waaye nag ngëm yàlla ba duufagul ci sa biir xol ragal yàlla nga duufagul ci biir xol kon balaa ngay duufal yaram mu gàtt bi bi nga paree rendi moo xam tabaski la moo xam hadiyu la fexeel ba duufal ak sa taqwa ba parce que moo tax mu ne la lan yanaala du yëgg ci yàlla lu umuhaa yàpp ya parce que yéen a koy lekk wala dimaa'uhaa deret ba itam du yëgg ci yàlla comme bu dee yenn yàlla xerem yi dañuy wax ne deret ba moom la ñuy dundee waaye yàlla nag moom dundiwul deret moom dundam dafa wuute ak yeneen dundi ñu jeex jokkoowuñu ci lenn Aïcha radiyallahu taala mooy suñuy yaay ne yonent bi dafa wax ne maa amila ci bés bi ibnu aadama amalan yowman nahari bésul tabaski nee na amul doomu aadama lam cay def ahaba ilallahi min raqati dami lu gën mu tuur ci deret kon tuur deret loo mën da yàlla ci bés boobu tuur deret moo ca gën mu ne wa innaha gis nga gàtt yu la taati yowmal qiyamati bi quruniha yowmal qiyamati dafay dékki moo tax ñoom ñuy njëkkalante pour ñu mën leen a rendi parce que dañuy dëkk nee na dafay ñëw bi colonia ànd ak ay ñu ne kon sopp wa azala fiha ànd ak ay wexam kon bu mu doon boo xamante ne dafa benn tànk ba dafa tànk bu mu am ay yooyu yëpp mënul tabaski nee na karaw gi sax dafay ànd ak moom nee na wa inna dama gis nga deret ba ba nga koy rendi nee na balaay tuuru ci kaw suuf am na fu ko yàlla di capté ba pare nangu ko suuf door caa jot kon geneen bu rëy mu ngi ci waaye nag la muy baax baax nag yanaaluhu la ca yëgg ca yàlla ak taqwa bu di ragal yàlla minkum mu nga ca yéen kon loolu mooy fondement loo manti def xam nga bés ba la mu bëri bari bëri yàpp te fekk sa bëñ yaa ngi metti sa boñ baa ngi métti bésu tabaski xam nga kooku yow bokkoo ci ñiy tabaski ne tabaski bi neex na yow bokkoo ci kon moom soxlawul lii parce que def du ko jëriñ moom mooy def koy loolu yàlla nee na itam gis na seen yàpp yu bëri ya ak deret gu bëri ga ak liñ ciy rendi bari na nag macha allah te boo demee Europe ñu ngi koy commencé di béy waaye nag la mu bëri bëri bëri bëri ak la mu duuf duuf duuf lenn moo ko mën a yëkkali ca yàlla mooy bu dee ragal moo ko fondement yanaaluhu taqwa minkum kon bu dee taqwa la fexeel ba na ngay amee gàtt ba mu rafet na mu na rafet loolu mooy taqwa waaye nga ne xar ba noo ko amee baax na yow daal na nga indi xar ci biir kër gi te bari na ñuy waajal tabaski ñu ngi koy waajalee li gën a bari rafetul surtout ci Sénégal parce que yàlla taxatu bu ko defee dana tàppale dana fen dana def njur njaay loolu yëpp dana ko def léegoo-léeg sa sàcc duggu ci léegoo-léeg sàcc dugg ci te borom xam-xam yi wax nañu ne bésu tabaski bu yegsee te amuloo ko sax bu ko lem te pourtant am na ko am bu ko lebee mu lebal la waaye mu ne jaru ko pour leb parce que yàlla namm ko ci yow xam nga kan la ko yàlla teg bi nga xoolee sa poos nga fekk ko fa bi nga xoolee ci sa biru ëtt nga gis fa xaar nga gis ne am nga kooku la ko yàlla teg waaye dem bi ko sa tegu la ko kon bu dee bi ko tegu la ko kon ñaani ko nag sàcc ko nag ila affaire taxawaay bi daf ci am solo nga wuti sa carte ñëw teg waaye lañ koy toggee yëpp nag dara lewu ci boobu itam taxawaay ba manqué na yëgagul ci yàlla waxuma sa waaye yow ci sa bopp xar bi ni ko amee baax na la nga dépensoo jënde ko duulin ak yooyu noonu dagal na waaye yére ba nga sol sax dem ca gi ba lewu ana taxawaay kon il faut taxawaay wër la lu mu tuuti tuuti yàlla na moo tax borom bi tabaaraka wa taala yombal ko xam nga bi gën nga tabaskee ko te ñeentee la ñuy tabaskee waxul la génne moo de waxul nag a génne dafa ne bi gën moom mooy nga tabaskee xar kon ba gën tuuti la wax ne bu gën xar boobu noonu est-ce xam nga ñaata la war a am pour yàlla nangul la ko mu ne bu amee juróom benn weer ñii ñu ne bu amee fukki weer sa baax amagul at sax ama qur'an yalla ne bo ren ne nanguna ko kon est ce que bobu jafé na bu dé bay bi mu ne la il faut mu am ñaari at bu fekkee ne nag bi mu ne il faut mu am ñetti at ba dugg ci ñeentee la bu dee gële mu ne il faut mu am juróomi at ba dugg ci juróom bennee kon mu mel ni ba gën a gënal kon lan tax nga di koy rafetul te léegoo-léeg ni ngay jaamoo yàlla doo ko jaamoo yow ni nga buggee jaamoo ko moom ni mu buggee moom lu am solo la il faut nga jaamoo yàlla moom ni mu buggee nga ne nga nettali benn góor boo xamante ne taalibe bi moo ñëw di koy bosal tànk bi di bos tànk bi rek mu ngay góorgóorlu nag ndikete fa muy bos stable la kon xam nga mu ngay bosal sëriñ bi gis na ne la muy def baax na hmm. waaye la muy def nag musiba waaye sëriñ bi mënu ko wax dara kon léegoo-léeg ngay góorgóorlu ci yenn yi nga ne dangay jaamu yàlla waaye na koy defee yàlla jéppi na la moo tax lu jar a bàyyi xel remouvement bi dajale bu tabaski jotee kenn du amati jot am na ko am bu xëyee mën na am ñetti fan du dugg ci biir loolu nag suñu soxna yi ñooñu ñu war a jàppale dimbale ñu ci parce que léegoo-léeg li ñuy teg borom kër yi dafay metti torop nga xamante ne du amati sa ko balaay def dara rek mooy mu indi la sa soxla bu fekkee ne indilu la fii sa soxla du am kër jàpp ci biir kon moo tax yàlla oyofalal ñu ko ne lan yanaala llaaha def ko doon def lim doon tabaski yépp ci gën a bëri ñaari xar la doon rendi bu xutba woon ba pare ba wàcc ci minbar bi dafa doon jël benn xar bi te moom lay jëkk a rendi ne gis nga yow yàlla bii nii ko ku amul tabaski ci sama xeet moom laay tabaski dal di koy rendi kon yow tey jii nii ci aaxiru zaman ci 2018 bii nii bu fekkee ne amuloo tabaski wala 2017 bi passé jarul ngay sonal sa bopp yonente bi tabaski na la te demee naa sa tabaski mën nañ ko lam-lame yàlla nangu na ko wala nangu ko waaye bi la yonente bi defal boobu nangu na wala de bu paree ca bopp nag door a jël beneen xar ko rendi ko ne yow yàlla mu ne ko nag mu ko bii na pour man sa ak sama jaww sallallahu alayhi wa kon jarul nga di ci rey sa bopp ci yenn façon lañ yanaala llaaha luhumuha wala dimaa'uha yàpp itam duñ ca yàlla déedéet da ay loolu ci ñun la waaye du ci yàlla walakin waaye la yegg ci yàlla yanaaluha at taqwa minkum bay nekk ci yéen kadhalika nee na naka nii saxarahaa lakum maa leen ko tàggatal seen nag yi seen xar yi seen bëy yi maa leen ko tàggatal bu ma leen bàyyi bàyyoon ak yéen ak seenu pexe rek bu boobaa seen tabaski dina jafe de te yàlla mënoon na ko def ne forcé wala de bu boobaa nag forcé boobu noonu imma nga def ko wala mu teg la daal waaye yàlla ñoo tàggatal ñu ko teg ko ci suñu biir ñuy dund ci suñu biir moo tax. yonent bi ne nañ leen bàyyi xel mooy rab yi nekk ci suñu biir hmm. nee na gis nga nga yéeg ci kaw eh, ci kaw wala ci kaw fas hmm. wala nga takk sa mbaam wala nga takk sa nag hmm. te moo la gën ca yàlla parce que moo lay gën a dund am na koo xamante ne jullul ci mbaam bi julli na ci pare mu xëy nekk acca ñu gontu dem ci àll ba di koy dóor te moom wala dem am na ko yëggee ne moom fasam ci noonu am na ku yëggee ne moom ci noonu ba tax bi nee na sax bu ci yéeg taxaw di waxtaan fekk dafa romboon ay nit ñu yëg ci seen kaw fas yi ñu nga taxaw di waxtaan yonent bi di leen xooloo ba mu yàgg ba ñëw mu ne leen bu leen yéegati ci kaw lii di waxtaan ndax ne ko bugg loolu yéeg ko nga dox dem waaye yéeg ko taxaw bu ko def mu ne ko gis nga léegoo léegi yii nga xamante ne ñoom ngeen di yéeg nii ci yàlla ñoo leen fa te yàlla mu ne comme charol bari inna charra dawaaba inda llah waaw suñu la dina laa yaqilu koo xamante ne du julli du woor du def lu baax kooku mbaamam bi moo moo ko gën ndax mbaam bi kullun qad alima salaatahu wa tasfiyahu ñoom duñu tardé ay julli te yéen a koy def te benn bu ci nekk itam boo koy teg na ko teg la mu man bu ko teg la mu manul teg ko la mu attan waaye bu ko moo tax mag ñi buñ doon ndox bu yàgg ci yoon yi ci seen tukki ya bu ñu doxee ba mu yàgg ñu wàcc gëlëm bi te gëlëm bi di dox di dem wala mbaam bi wala fas bi di dox di ko yëg parce que il faut ñu noppal ko moom itam dafa am àq moo tax il faut ñu jox leen àq yooyu bu fekkee ne fas la bu fekkee ne gëlëm la mën nañ ko yëg waaye bu fekkee ne nag la kooku duñ ko yëg kooku yéen tamit tere moo tax benn bés mu ngi waxtaan ak saxaaba yi am na benn waa joo xamante ne dafa jëloon nag yéeg ci kaw xam nga nag loolu rek la bañ si yàlla bindee ko nag boo yéegee ci gannaawam bi rek mu tebal la day gis ñu ngi koy yéegee noonu ca Europe parce que bëgguñ ko yëg ci seen gan dafa yéeg ci gannaaw nag bi nag bi ne ko yàlla bind ma pour loolu lii da ko yéen tamit nettali saxaaba yi xoolante nag buy wax yéen a tamit ne Aboubacar nga fi nekkoon jëm. Omar bu fi nekkoon jéem ko te man jéem naa kon nag ma nekkul pour loolu xar bi itam dafa am lu yàlla tax mu bind ko waaye nga ñëw di koy tàkk yàlla bind ko pour loolu yéen ko buur bi mu di la yow loolu taxul yàlla bind ko kon benn bu ci nekk li tax yàlla bind ko fexeel nga di koy teg loolu la te bu ko teg loo xamante ne nag ëpp na te rab yooyu tëdd la ci yàlla ndax yàlla wax ne mimma amilat ay alama ca solo tuyaat yàlla nee na li ma bindalal sama bopp ma jël ko jox leen ko te mbindaa koy bokk na ci yi gën a tëdd ca yàlla te bu fekkee ne xaj rek yonente bi nee na nit dugg na ca aljanna kon rab yi nag benn waay dox na ci banu Israil te loo xalaat ci jëf ju bon nag waa ji mas na koo def nee na dem ci àll bi rek mar bi sonal ko mu dugg ca teen naan ba pare génn si rek nee na gis benn xaj mu xam ne li ko sonal ba dugal ko ci teen bi mooy mbaal bi moo sonal xaj bi nee mu daldi dugg ci biir teen jël dàllam bi bënn ko ñëw jël jox xaj bi ba mu naan ba mu mandi nee na loolu la ko yàlla xoolee ba muy def loolu yàlla xool ko rek wàcce ci moom yërmande ne kii àjjana la jëm te mosul def lu baax saxaaba yi ko xaj mu ne la mu xaj kay xanaa xamuleen ne lépp luy dund li kulli kabidin ratbin ajra lépp luy nga ci am tiyaab nag bi buntu teen bi xam nga la fay def xam nga la def ci buntu teen génneel bu ci tayal dara nga may ko bu dee xaw nga yàkkamte sax jéem a bokk ci tiyaabu wax waxal benn xale ne ko may ko ndax addaalu alal xayri ka faalihi bu boobaa nga am ca tiyaabu ko bu dee robinet la nga ubbil ko may ko wala de mag ñi dina doon def ganaar boo doon defar say dugub boo doon defar sa dugub ndax ñoom dañ caa wala de lu jar a bàyyi xel la ci biir kër dugub boobu noonu fexeel nga tibb ci may ci mag ñi noonu lañ doon defar ganaar parce que ñoom dañu am àq ci mbir te yow bu boobu ñëw jël bi dugal ko ci sa bool bi nga defar ba pare kon jox ko àqam balaa nga ca yegg boo ko sottilee nag bu boobaa nag mën nga koo dàq pour mu dem ca bee noonu nga koy defee ci ganaar noonu nga koy defee ci la ci xar bi cox bi ak yooyu ciy génnee ñoo ko moom boo demee mbaam yi ak nag yi ak gëlëm yi ñoom ñoo moom la ñoo moom ngooñ bi waaye léegoo-léeg ñun dañuy jaay gerte ba pare wala ñu def ko mbaxal wala ñu def ko maafe wëlbati ko jëlaat ngooñ bi jaayaat ko ñëw def ko fiiriir foo ko teg sa nag bi war a lekk dafa def ci am du droit maanaam lu mu moom la parce que yàlla ko wax waaye na ban waqat ban wa zaytunan wa naxlan wala de ba mu ko waxee mu ne mataan la ko wala yàlla ami ko yéen a moom moom xaree nag yi moom sa toolu dugub bi nga pare am na ci loo moom am na ci lu nag yi moom sa toolu mboq am na lu ci nag yi moom sa toolu gerte am na lu ci nag yi moom te ba ngay dem ca tool ba fàttewuloo leen fi dangaa def ñu def kon boo jëlee jox leen seen wàllu bopp lii la yàlla wax moo ñu war leen a toppatoo bàyyi leen bu baax baax a baax a baax ba mu tere sax moom yonente bi ne kenn waru koo teg di seet ndax jub nga loxo maanaam kenn waru ko essayé dara ne yan rasulullahi sallallahu alayhi tere na an yu taxadal baayimo xaradan xaradan mooy da ngay seet ndax jub nga loxo jël luy dund teg ko naan da ngay ndax jub nga déedéet essayé ko feneen waaye bu mu doon ci luy dund. xam nga li ko war loolu di dund yow buñ ko bàyyee woon mënoo ko bind mu ko abada moo tax rab yi ci àll bi sax yonent bi ne boo ko aajowul xaram na nga di koy rëbb na doon ne dangaa xiif aajowoo ko nga door a mën a jàpp picc ba wala nga jàpp rab ba pour mën a lekk waaye jàpp ko sànni xaram na ci lislaam parce que li ko waral mooy ne bakkan ba fa ne kenn mënu koo defar comme kenn mënu koo defar nag kon kenn waru koo faat lu dul ci ndigal ak borom bi tabaraka wa taala kon kadalika yàlla nee na maa farataalee noonu walbatiku nag fa xaraxaa tàggatal leen bàyyi ma yi mooy gàtt yi lakum ñeel leen yéen xam nga nag bi nangul na waaye est-ce nangul nag bukki bi ci àll yow man nga ñëw rat xoolal rek ni ngay ñëw rat te di xëcc rek ne tekk mm-hmm. kan mm-hmm. eh, mm-hmm. di lay xaar da nga pare waaye xoolal nag boobu noonu bu xaj bëggoon a ñëw namp ci wéena est ce que nag du ko nag comme ça xanaa xaaral yàlla ne ne ngeen laa ko waaye lu ma leen ngir keneen di tukabbir itam ngeen man di kabbar di tudd yàlla parce que won na leen li ngeen war a def moo nag leen di tabaski ba nga ne bismillah wallahu akbar te ci rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wala bismillah allahu akbar bu la nee waaw nga dugal bu la na ñàkk a dugal waaw bu fekkee ne da ngay ngénte wala ngay gàmmu wala ngay bernde sa gan bu boobaa bismillah jeex waaye bu fekkee ne nag ngay tabaski wala ngay rend ba nekk ca Makka mooy hadiyu alhamdulillah allahu akbar ci bi ngay berndeel nag sa xarit boo koy rendi mën nga wax allahu akbar bismillah allahu akbar yu la neex waaye fee dañ ko gën a soppee nga xamante ne foofu la ko yàlla waxee li tukabbiru llaha pour ngeen mën a kàbbal turu yàlla tudd ko ca la ngay direct jot naa ci benn vidéo boo xamante ne bu yéeme la benn waajoo xamante ne dafay yar ay gàtt waaye gis nga bu jëlee gàtt bi teral ko ne bismillah allahu akbar xar bi ni dafay ne tekk lu yéeme sax xaw ma ndax jéem am na ko ko ci gis dafay ne tekk tekkaar macha allah lu yéeme sax waaye bu ci tuddul bismillah allahu akbar dafay bugg di fittan buy bàyyi rek mu teg waaye gis nga bu koy teral bi ne bismillah teral ko rek mu ne tekk na kon am na leneen lu ñuy dégg ñoom ñun bu ñu xamul turu yàlla yi waaye rabu rab yi xam nañu tur yàlla moo tax mu ne li tukabbirullaah ngeen kàmbar ca alaa maa hadaakum ba mu leen wone li ngeen war a def tey jii nii xam nga xar la béy la nag la gëlëm la kon leeral ko ne yii lañ war a tabaski bu ñu ko waxul woon est-ce que danañ ko xam bu waa dañuy bugg di lambaatu rek ganaar est-ce na tabaski mënul tabaski ganaar mën na tabaski tey am na ay borom xam-xam yu ko wax imam am na ay borom xam yu ko wax parce que yonente bi tuur deret la wax wala de te ganaar lan la tuur deret la te wala wax te ganaar tuur deret la te yàlla wax ne wattaqullaaha mastata'tum na nga ragal yàlla kenn la man kon boo amul xam boo amee ganaar bu da neex nga rendi ganaar moo mooy indi borom xam-xam ba imaam ba doog leen di ganaar ba tey imaam ba dana xëy war a leen war a leen moo amul tabaski jabar ji wax mu ne ko man weeru naa jéem aw ma dara aw ma xam li ma am daal mooy ganaar kon ganaar bi lay ren mu ne ko ganaar mu ne ko waaw ñuy xëy muy jàpp ganaar bi ganaar ba naaw mu dàqee ca sàkket dem mu daw yéeg ci kaw néeg ba ganaar bi di daw rek ci biir dëkk bi ñu ne imaam imaam kon imaam amul ganaar liggéey naka imam amul amul xar diggante ñu mujj cotiser indil ko indil ko xar mu ñëw wax soxna si ne pour ça ganaar bi am na njëriñ bi parce que moo ñu indil dara moo ñu indil xar bi far nag at bu nekk nag waa dekk bi mu cotiser indil ko xar wala de kon ganaar ba mujj na ko njëriñ boobu pour war na ne boo ragalee yàlla ca la nga am rek yàlla fekk la ca kon moo tax am na wax ci borom xam-xam yi boo amulee xar comme ganaar si mën na ko bokk wala de parce que ren de la ñu dem waaye lu mel naka ñay est-ce que mën na tabaski manul lu mel naka zaraafa mooy jamara manu ko kon yi man tabaski mooy yii loolu yàlla tudd beneen côté alaama hadaakum nga xam bi ci gën gëlëm bi baax na waaye xar bi moo ko gën moo tax xar bi moo ci jiitu bu góor bi nag boo amul boobu nag nga fexe am bu jigéen bi xar bu jigéen moo gën gannaaw xar bu góor boo amulee boobu nag nga dem jëli nag béy béy bu góor bi itam moo gën boo amulee béy bu góor bi nga door a jëli béy bu jigéen moo boo amulee boobu nag nga door a dem uti nag nag bu góor boo ko amulee door a dem uti gis nga ko nag bu jigéen nag bu jigéen ba boo ko amulee nga door a uti gëlëm boo amulee gëlëm ba nag bu góor bi nga door a uti bu jigéen ba bu dee tabaski waaye su fekkee ne nag hadiyu la foofu gëléem moo fa gën parce que mbooloo ba fay daje pour bu fa xew am comme mbooloo dafa laaj lu rek kon mbooloo ba fay daje ngir ne dañu bëri moo tax gëléem moo fa gën bu góor bi boo amul ci bu jigéen bi ñëw ci nag bi boo amul góor dem ci bu jigéen bi boo amul boobu door a ñëw ci xaar bu góor a dem jigéen door a ñëw ci béy ci bu góor bi ak ci bu jigéen bi moo am yoo xam ne bu ci dajee nag bu boobaa mënatul tabaski bu dee dugub ci jigéen bi dafa dàgg parce que mënatul xaj bu fekkee ne itam dafa dàgg nopp bi waxu mu xar xar-xar bi nag bu fekkee ne dem na ba yegg ca nisfu wala sulus basar ñu ne mënatu ko boobu itam dañ ci war a bàyyi xel parce que la ñuy dàgg seen génn yi di dàgg seen nopp yi ñoom ñii sàmm léegi la ñu koy def ku ko def tabaski façon yooyu noonu dañuy faral di mën tabaski bu dee ne benn bët ba dafa parti itam mën mu tabaski yooyu itam da ci jar a bàyyi xel bu dee bu làpp toor ak bi nga xamante ne amatul gres ci biir yooyu yëpp mën a tabaski bi nga xamante ne moom mooy sox sox bu feeñ boobu itam mënatul tabaski noonu lay demee itam ci ngente ñu la bàyyi xel li man tabaski moo man lu manul tabaski manul ngente waaw boobu itam il faut nit ci bàyyi kon moo tax mu ne la li tukabbiru llaha ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ba ngeen wane li ngeen war a mën a def li man am

waaye ci biir loolu itam alama hadaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk labbe yi ak catholique yi xamuñu yi xam nga dana ñuy def seen yeneen jàpp waaye xamuñu rek lii ak lislaam indil ñu ko kon alama hadaam nga xamante ne lu rëy la ndax la ko waral mooy ne sarax ba lépp loo ca def deret ba karawa ak yépp dañ lay jotu bu yomal qiyaamati ci tey mu ne wa bashir na nga bégal nag al muhsiniina ñay rafetal ñay rafetal dañu ne kon bu dee nii la yàlla nee na ñay rafetal xadis ba dafay daal di ñëw rek mooy ne inna allaha katabal ihsaana nee na yàlla dafa bind nga rafetal fii kulli shay ci lépp nag fa ida qataltum booy rey dara fa ahsinul qitla même booy rey janax wala ngay rey jaan wala ngay rey gis nga ko yeneen rab yi léegi ak yooyu noonu xit xat lu buñ la ko waxee dañu xaw wute ci ara ak zabo dabu mooy lu ñuy lekk si kàpp mooy doon luñ ko lekk ci olof a def soin rey ak rey bi naa du benn de rey mooy boo xamante ne doo ko utiliser wala de moo tax jaan dañ koy rey waaye li ñuy rendi nag ganaar la mooy loo xam boo paree ko mën a utiliser yonent bi na booy rey même booy rey lu dul jiru ji sax mu ne na rafet wala de waaye tey jii nii gis nga ko ngay rey nit ki unk wala janax jël lancet di dagg loxo yi di dagg nopp yi kooku dara waaw bu ko abada moo tax kenn du ko def akada fa ahsinul la mu ne wa ida sabahtum bu ngeen di rendi itam fa ahsinu zibaha na ngeen rafetal rendi ba moo tax booy rendi xaar ci bàyyi xel na rafet sallallahu alayhi wa sallam lii la wax bokk na ca rafetal ba mooy mu ne sa bul dagg bu mu ne tàmpet borom xam-xam ne boo ko defee nag danañ ko lekk fit nañ ko waaye danañ ko lekk waaye di dagg di dagg ba dindi boobu ne tappet ba mu jeex kooku rafetul kon fa ahsinu zibha loolu la koy def sama sama moo tax mu tere ne xaru tabaski bi nga xamante bu paree dañ koy fees bul commencé di fees te ren dégguñ ko waaye bi kon moo tax mu ne la fa ahsinu az-zibhata yàlla nee na wala yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam kenn ci yéen bu demee ba war a rendi na nemmeeku li muy rendee na fexe mu doon lu ñaw nga xamante ne bu xasee ba teg rek du ko tekki te loolu jar ku ragal wala ku ko jox mu rendi gis nga boo xasee ba teg paaka deret commencé di tuuru boo ko yëkkatee te demul ba mu jeex te rendi bi moom mooy lan mooy put bi na dàgg ak ñaari sidit yi wala jey bi fekk ñaari yooyu daggaguñu ñett yooyu daggaguñu boo yëkkatee métti la te li koy ñu ne jékkali leen ka waaw ma tam jékkali métti la bu baax moo tax di ci bàyyi xel bokk na ci li am solo ci gis ismu bi mooy ne gis nga yi ngay rend bokk na ci liy gën a gaawal pour ruuxu ba gën a teel wàcc mooy tudd ci yàlla yëpp ci ihsaan bi la bokk bashirin muhsin seetlu nañ ca Hind euh, ca Asia gaa yoo xamante ne dañu jëloon benn nag di koy rendi lu daw yaram sax xaw ma dama daa gis ne ko ci vidéo bi léegi jël ko rendi ko ba pare laa wax de daal baat bi ba baat bi jeex ba ñoom foog nañ ne jeex na nag bi jox taxaw nag bi jox taxaw ñu jëlaat paaka bi gis nga ñu ngay mel ni di koy dóor comme ni ngay daggee jaasi mm. nag bi taxaw mm. dem nañu bi baat bi kii nag bi mu ngi taxaw dund ba léegi loolu yëpp waral mooy ne tudduñ ca yàlla mm. ci li ñu seetlu dañ ca tuddul yàlla gis nga boo ci tuddee yàlla ko ruux bi dafay gaaw a dafay gaaw dem loolu ci ihsaan bi la bokk moo wa xam nga dem mel ni muy nga gis dem allah gënoon bi yëpp nga gis ko mu ubbeeku nii pour kon bokk na ci ihsaan mooy nga tudd